alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi nit naka nit ka rek la nit daal bàyyi nee mooy nit ki rek nit nit ki rek la nit nit ki rek la loo nekk bëgg ku la ca gërëm keneen bu nekkee ci lëf bu gën a loo nekk bëgg ku la ca dimbale keneen bu nekkee ci lëf bu ku la ca dimbale loo nekk bëgg ku la ca dimbale keneen bu nekkee ci lëf bëgg na ku ko ca dimbale moom. nguur soxla na dimbali mbooloo bi. nguur soxla na dimbali mbooloo. mbooloo bi soxla nañ dimbali buur bi. mbooloo bi it soxla nañ dimbali buur bi. buur moo amee réew mooy roog réew. buur moo amee réew mooy roog réew. mooy xolab réew. mooy xolab réew it. yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi wax na ne sallallahu alayhi wa sallam. aw marson ci jëmmi nit. aw morso mi ngi nit ki. suufu yàpp la wu tuub bi. morso woowu suufu yàpp la wu tuub. waaye bu néewee nit ka yëpp xewel. waane morso woowu bu yéwénee. mboolam nit ki léppam dafay yéwén. bu yàqoo nit ki lépp yàqu. bu nit ki léppam day yàqu. morso boobu mooy xol. morso boobu nag moo di xol. xolu réew mooy gouvernement. xoli réew mooy gouvernement. bu jubee réew ma yëpp jub. su jubee réew mi yëpp jub. yëpp yëpp jub. yëpp yëpp it dana jub. bu dëngee lépp yàqu. bu dëngee it lépp yàqu. Kisra dafa bindoon. Kisra dafa bindoon. ci waxande ma nga xam ne ca la doon denc ay kexeem. ci waxande baat yi la bind ba muy dellu lañ fekk ci waxande baat yi bàyyi di wax ci moom la bindoon ba muy dee loola lañ fekk ca waxande wa. Kisra bu muy wax dafa maandu ba nga xam ne. te Kisra wax dafa maandu ba nga xam ne. dafa ne bu dee. dafa wax ne bu dee. nañ xenu tàddam. ak tàddam. penc mu ne ñu taxaw fa. penc mu nekk ñu taxaw fa ak tàdd ga. laaj ku ma amee xaq wala ku ma sa tooñ. laaj kenn ku ma sa amee xaq mbaa mu mos laa bu amee gannaaw xëy ñu fay ko soog ko suuf. bu amee lee kenn ak. ñu fay koo ka ba xaqam mat. ñu soog koo suul wëri nañ saddam nga réewam ren ba déwén gisuñ kenn ku mës a tooñ wala ku ma moom wëri nañ sant saddam ngam réew xatam lam mboolem réew ma ba xat ma mat gisuñ kenn ku mës a tooñ mosuñoo gisit ku mu amee benn xaq ci baax ak njubam googu jamonoom sax ci la yonent bi judd ci baax ak njubam googu moom Kisra ci la yonent bi judd sallallahu alayhi wa sallam ci wuuram ci la yonent bi juddu. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. lii la bind. lii bàyyi di wax moom la bind. mu ne buur mi ngi dund ci nguuram. dafa wax ne buur mi ngi dund ci nguuram. nguur mi ngi taxawee ci aw góor ñu dëgër. nguur it mi ngi taxawee góor ñu dëgër. góor gu dëgër lu may ci alal ju bari. góor gu dëgër it lu may ci alal ju bari. alal ji bari du am lu may naataange la ci suuf si mbay mi barke commerce barke alal ju bari du mën a xam lu may mbay mi bari ci suuf si naataange ci barke commerçant bi it moom it mu barke suuf bi ak mbay mi yëpp du barke may ak mbay mi ak ñoom yëpp duñ mën a barke mukk lu may buur bi dafa jub buur bi jubee bu buur bi jubee barke wàcc yëf yëpp barke wàcc ci yëf yëpp xalal bari xalal bari nit ñi góor doole góor ñi am doole dëgëral nguur gi dëgëral nguur gi nguur gi dëgëral njiit li nguur gi it dëgëral njiit li muy président muy buur boobu président mooy buur mu di président mu buur laa muy président muy buur mu ne bu buur bi jubul mu ne bu buur bi jubul bu jëngee bu jëngee rek barke daal di génn ci mbay mi commerce bi. rek barke daal génn ci mbay mi génn ci commerce bi. nit ñi daal di ñàkk. nit ñi daal di ñàkk. su nit ñi ñàkkee néew doole. bu nit ñi ñàkkee néew doole. nguur gi daal di ñàkk néew doole. kon nguur gi dafay daal di ñàkk. moom it néew doole. kon nag jubag buur bi rek. kon nag xamee nañ ci la jubag buur bi rek. ci la yëpp di jubee. ci la lépp di jubee. yéen la yàlla jiital ci kanam njaboot gi. yéen la yàlla jiital ci kanam njabootam gi. leen jëng jëm ndeyjoor bu leen jëng jëm càmmoñ na ngeen seet ñëpp bu leen jëng jëm ndeyjoor bu leen jëng jëm càmmoñ seet leen tarixa yi gouvernement war da nekk ci loolu moom ko war a seet mbooloo mi moom dafa war a seet mbooloo mi rek mu nekk lañ mérité nekk lay seen mérite ñu def ko ci ñoom. loolu moom laa leen di digal. loolu moom la leen bàyyi di digal. maa leen di gërëm ci ñëw bi ngeen di ñëw. te mi ngi leen di gërëm ci ñëw bii ngeen di ñëw. mi ngi ñaan yàlla mu jëriñ leen ci. mi ngi ñaan yàlla it mu jëriñ leen ci yaara bi. ci barke borom guddi gi. ci barke borom guddi gi. ñu jublu nag ci li tax ñu ñëw. ñu jublu nag ci li nga xam ne moo tax ñu ñëw fi